salaamaaleykum gars yi na def maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de a sur YouTube xaalis ci YouTube euh, ki leen koy defal li ñu leen koy defal vidéo yi en wolof vidéo du jour tey bi nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, direct YouTube nan lañ koy defee dafa am ñu bëri ñu ma koy laaj ma def ci vidéo du jour pour ñoom ñëpp ñu xam ko ak ñeneen ñi nga xam laajuñ ko mais bëgg nañ ko xam tam ñu xamaale ko direct euh, yomb na c'est très simple Euh, da ngay ñëw fii ci kaw ci YouTube bi fii nga xam ni fii lañ def caméra plus bi nga xam ni booy téléversé vidéo dugal booy dugal vidéo ci YouTube fii ngay ñëw fi ngay ñëw nga cliqué ko soo cliqué ñaar yi mooy ubbeeku muy mettre en ligne une vidéo maanaam ndax da ngay jël vidéo dugal ko ci YouTube wala passer au direct ndax da ngay def direct nga cliqué fi ñu bind passé au direct soo cliqué fi ñu bind passer au direct léegi nga war a paramètre sa direct nan la war a mel voilà yaa ngi fii nga webcam fii nga def flux nag il faut nga am beneen logiciel logiciel bu def direct pour mën ko def tax fii yëpp doo ko laal yaa ngi yem fii nga xam ne mooy webcam yow da nga bëgg def rek direct utiliser sa webcam filmer def sa direct fii ngay yem ma lay fàttali nag direct pour nga def ko il faut nga am caméra webcam su fekkee ordinateur bureau nga yor il faut mu am caméra webcam nga def ko ci su dee ordinateur portable nga yor portable nag yi si ëpp bëpp yëpp yi si ëpp dañu leen di liggéeyaale ordinateur webcam voilà su fekkee amul webcam tam nga jënd webcam monté ko ci parce que direct boo koy def il faut nga am webcam voilà pour mën a filmer sa li ngay filmer sa bopp di génn di wax ak euh, sa audience directement li ngay njëkk a def mooy choisir titre fii ñu def léegi ñu def test vidéo ñu tuddee vidéo bi noonu voilà test vidéo direct voilà test vidéo direct voilà léegi bi ñu defee test vidéo direct léegi mooy titre vidéo parce que vidéo euh, vidéo direct bi ngay war a waaj a def il faut mu am titre comme yeneen vidéo yi ni ñu amee titre nga choisir tam vidéo publique la wala privé parce que comme direct ngay def public la war a nekk par défo nii mais nag comme man dama leen di wan te dama nekk en ligne te su ma defee public nii ñi nekk ci youtube bi abonné yëpp si Galsen Tube bi dañuy gis ni maa ngi def benn vidéo direct ñu ñëw di ko seetaan defe ne daam lu may xam ñoom fekk man boobu maa ngi defar vidéo bi te duñ ko xam moo tax damay ñëw fii ma def privé pour ñoom ñu bañ ko gis voilà parce que su ma ko bàyyee publique dañ koy gis mais booy def direct public nga koy bàyyi fii su fii pour programme la kuy def direct soxlawoo ko parce que programme bi soo fekkee dangay def direct exemple mi ngi mel ni ngay ngay filmer en direct nii di wax mais vidéo bi buggoo ko say sa audience gis ko tey yaa ngi ko bëgg a programmer soo defee direct ba pare YouTube enregistré ko bàyyi ko ci YouTube bi ba suba ci waxtu sàngam suba ci 5 heures mu soog koo envo mu soog koo def say euh, abonné yi mën koo gis da ngay ñëw fii nga cliquer fii fii ngay cliquer boo cliquer gis nga mu bu nga ñëw fii suba laa ko soxla par exemple ci 5 nga ñëw fii nga changer date bi suba le 8 nga def le 8. maa ngi ko soxla ci 5 heures pile laa bëgg sama abonné yi commencé ko gis nga wàcci si heure bi wàcc mi ngi nii ba 17 heures ma def 17 heures voilà soo defee 17 heures suba ci 17 heures la ko sa abonné yi di mën a gis voilà mais nag comme booy def direct en général def direct 99 pour cent yi dañoo dafa am lu ñuy wax bëgg ñi leen seen audience gis leen léegi léegi ñu koy wax ak ñoom moo tax ñuy def direct su fekkee da ngay def direct ba pare di ko programmer kon nga jël sa caméra nga enregistré ko bàyyi ba suba rek nga dugal ko ci YouTube bi moo gën a simple mais YouTube da ko a ko def moo tax mën nañ ko décoché voilà parce que soxla wuñ ko léegi nga ñëw fii ci audience bi fii fexeel ba mu nekk non ce contenu n'est pas pour les enfants bu fekkee dafa fa nekk fii nga dindi ko parce que bouton bi bu weex bi fii la war a ne exemple su nekkee fii gis nga nii lay mel nii lay def te su defee nii sa vidéo bi képp koo xamante ni amul 18 ans du ko gis du ko du ko su koy seetaan du mën am publicité yu demee noonu te vidéo bi dañ koy réserver du nekk vidéo boo xam ne YouTube da ciy def ay publicité pour parce que day ni publicité bi vidéo yi pour xale yi la mooy loi COPPA bu bees bi YouTube defar nga xam ni dafay def pour protéger xale yi léegi kenn dootu leen manipuler si video yi ak publicité yi nga xam ni commentaire ak yu bari léegi soo defee vidéo pour xale yi loolu vidéo bi dootu ko amati moo tax fii la affaire bi nekk parce que par défaut am na vidéo bu ma leen woon par défaut da nga ko war a régler ci chaîne bi benn yoon nga xam ne vidéo booy defati rek day nekk fii ci nga xam ne bi ma ñëwee automatiquement ci non la nekk non parce que dama koo paramétré woon dama koo paramétré woon ci chaîne bi vidéo bu mu mun ti def rek fii lay nekk nga xam ne xëy na man ma soxla ko dindi ko dindi ko mais su ma defee par défaut la moo tax noonu neen koy def par defo voilà léegi soo paree fii mu la neexee d' option nga ñëw fii mu indi la yeneen option muy si euh, détails yi exemple lii ngeen di gis mooy description bi nga xam ni moom laa def par défaut vidéo bu mu mënti dugal rek lii description bi lii nga ciy gis si suuf parce que dama kaa def par défaut pour muy ñëw sama vidéo yëpp muy information yi nga xam ne moom ngay def ci suuf vidéo yi su la moo nekk nii boo defee plus lay soog a génn gis nga fii mu demandé la catégorie mais yëpp comme sa vidéo YouTube da ko def par bu dee da nga paramètre sa chaîne def ko par défaut du soxla nga fi changer dara mooy bu dee defoo ko par a def mën nga ñëw nga changer exemple

gis nga day dem voilà def contrôle Z mu ñëwaat voilà voilà gis nga loo fi effacé day dem léegi nga ñëwee fii science technologie nga mooy fii da ngay choisir euh, chaîne bi ci ban thème lay wax voilà thème yu bari lañ fi mu yaay xool ci éducation ngay wax ci vie pratique ngay wax ci actualité ak politique ngay wax ci divertissement ci ay comédie lu mu ti nekk rek nga bind ko fii voilà soo paree ji nga fii caméra ban ban sa ban ban euh, webcam bu dee da nga yor webcam yu bëri ci même ordinateur bi danga nga ci branché ay webcam yu bëri yu bokkul nga choisir choisir fii webcam bi nga xam ne moom nga bëgg a utiliser voilà soo fii man benn webcam laa fi paramétré webcam bii sax dama ko paramétré woon utiliser sama téléphone comme webcam parce que fa am lu ma ci doon def euh, programme moo tax mu tudd euh, Droidcam source 3 voilà mais webcam bi connecté wu ma ko sama ordinateur portable laa defoon connecté wu ma ko mais par par par défaut daf ko détecté ci ordinateur moo tax indi ko su ne da yor yu bëri fii da lay bindal bu dee ya yor ñaari webcam yëpp branché wu bindal nga choisir bi nga bëgg su dee benn kese moo fi nekk moom mooy ñëw par défaut su amoo webcam dam mu defal la webcam am fi pour nga def fi webcam gis nga fii micro ban nga bëgg a utiliser par défaut waaw bu dee micro ordinateur nga nga bëgg utiliser nga choisir fii voilà soo fii ñu ma defal. Euh, casque laa bëgg a utiliser mooy casque bi ma taq ni bu Microsoft Live chat bi wala micro euh, kii bi laa bëgg a utiliser euh, ordinateur bi wala par défaut bi laa ko bëgg def lu lu mu si mën nekk parce que fam am casque bu ma fi dugal des fois boo xam ne casque téléphone la moo lay demander ban casque nga bëgg utiliser pour wax ji voilà bu defee nga choisir casque bi nga bëgg jeex na mu nga ñëw ci paramètre avancé tamit gis nga mu nga ñëw fii li nga activer le chat da koy activer ndax booy def direct bi nit ñi en ah, dina ñëw fi après dinaa leen ko ndax mën na am description waaye question yi day feeñ fii à droite xaar après dina ñëw suñ commencé kii dinaa leen ko wan question yi bu feeñee yow ngay répondre loolu ndax da ko bëgg activer di nga YouTube da ko activer par défaut parce que loolu moo logique booy def direct nit ñi mën la poser ay question ngay répondre su dee bëggoo kenn poser question direct da nga bëgg a waat am loo bëgg wax rek wax ko audience ko fii mu deñ voilà su deen bañee nag dama recommander nga bàyyi ko nii pour bu ñu la bëggee poser question fii gis nga cette vidéo contient une promotion payante telle payante telle qu'un placement de produit rémunéré des sponsoring ou un autre type de publicité maanaam ndax vidéo bi ngay def nii dañ ci dafa am publicité boo ciy jàllale wala promotion benn mbir boo xam ni dañ laa fay pour nga def ko wala benn produit boo xam ne da nga ko ci publicité waale wala dañ la sponsorisé wala beneen xeetu publicité bu mu munti doon boo xam ni direct bi ndax nga si defaale su fekkee loolu am na am na produit loo ci publicité waale loo xam ne dañ laa fay wala loo xam lu munti doon daal loo xam ne na ci promotion wala sponsoring wala euh, produit wooy wane wala publicité nga coché ko su fekkee c'est pas comme man nu may def rek nga may def ay vidéo expliqué dañuy YouTube nu ñu koy mën a nga bàyyi ni fi def dara noonu la paramètre avance foofu la après nga cliquer flèche bi après nga arriéraat voilà boo arriéraatee léegi réglé nga lépp nga ñëw ci suuf parce que yéppoon naa leen ko je crois comprendre nga lépp ni ñu koy paramétrer voilà nga ñëw ci suuf fii nga def suivant boo defee suivant gis nga defaral na la vidéo bi programme na ko léegi gis nga test vidéo direct titre baa ngi nii su dee titre bi daa am loo ci juumoon par exemple ma bëggoon bind vidéo direct kase test bi ma ko dindi fii ngay ñëw nga cliquer fii gis nga nga daal koy changé ma dindi test bi daal bàyyi vidéo direct voilà après nga nga nga tëj nga def enregistré voilà fii voilà comprendre nga j'espère léegi nga ñëw su nga suuri boo tegee gis nga xam su ma tegee gis nga tableau bu zone bi koy génn bu orange bu orange bi nga su ma tegee gis nga luy feeñ mu bindal la wane la benn appareil photo defal la changer de miniature wala la benn photo ne la importer une miniature personnalisée maanaam su dee miniature dafay nekk nga bëgg koo changer par exemple par défo YouTube détecté miniature boppam bëgg ko indi fii ngay cliquer muy changer di xool ba nga gis miniature bi nga soxla. gis nga di ngeen bind fi importer une miniature personnalisée nga cliquer importer une miniature personnalisée waaw nga cliquer ko boo ko cliquer dina la yóbbu sa ordinateur. bu nga dem fi nga def say miniature. nga daal di choisir miniature bi nga xam ne moom nga bëgg ba choisir miniature ba pare léegi su fekkee miniature da nga juum bi nga dugal du moom fii ngay ñëwaat nga defaat ba léegi importer une miniature voilà doo def fii changer importer ngay def nga cliquer ak mu yóbbaat la ci ordinateur nga waraat bi nga soxla léegi su fekkee nga vérifier nag balaa ngay passé direct nga vérifier ba xam titre bi nga soxla woon am na euh, dem na normal ni nga ko bëggee woon ba xam euh, description yi tout ça. bu dee da nga bëgg a partager direct fi nga koy partager bouton partage bi mën ko partager ci Facebook wala Twitter wala Instagram fi ngay cliquer partage boo vérifier lépp normal la nga def passer au direct voilà passer au direct ngay cliquer pour mu dem direct fi ma leen doon wax sànq moo nekk euh, fe discussion bi ñi nga xamante ni ñooy euh, nekk di euh, seetaan vidéo bi am nañ possibilité def fii di ànd ak yow def fii ay ay commentaire nga leen di répondre comme ni ma leen ko waxee sànq. boo bu ñu bu ñuy commenté fii nga koy gis su fekkee tam danga nga bëgg a ndax sa son am na problème wala amul problème boo leen ko demandé tam bu ñu bindee fii lay feeñ léegi nga def passer au direct foofu fi cliquer direct bi moo ngi préparé wu ñu nga diffusion en direct commencé na gis nga léegi voilà gis nga mi ngi la bindal diffusion en cours di nga nombre temps bi nga xam ne moom la euh, kay bi vidéo bi daw moom lay la bindal fii partie bi nga xam ne moom daa zone su ma branche woon sama webcam automatiquement man maa fi feeñ may wax nii li may wax nii di génn voilà léegi boo wàccee ci suuf gis nga fii audio bi sa ojo fii ngay xamee ndax li ngay wax mi ngi jàll wala jàllul voilà mais ñu su bari bu ñuy def direct en général dañuy wax laaj ñi ñuy defal direct ne leen su fekkee yéen a may dégg micro bi normal na def leen ok su ko defee ñi nekk en ligne di suivre ñëpp bind ok nga gis réponse ok di affiché fii nii à droite voilà léegi mais yow mun ko ko xob vérifier fii gis nga fii yaa ngi gis bi ñi nga nekk na point bu vert yi ci weex parce que volume bi wax jaa ngi ñëw mais suufee na mais mi ngi ñëw ah, gis nga léegi gis nga fii soo bëggee arrêté direct bi su fekkee wax nga expliquer li nga bëgg a wax gars yi discussion ba discussion bi jeex nga cliquer fii ñu def arrêté la diffusion euh, defal wan la ñaata nit ñoo ko doon seetaan te fekk na euh, defuma direct pour pour def direct pour expliquer mais dama def direct pour cours bi mais gis nga teewul am na sept personnes yoo xam ni nga ñëw ko gis gis nga euh, parce que defuma ko privé boo tax voilà euh, gis nga nii léegi mu defal la durée bi defal la yëpp léegi nga dem modifier la vidéo YouTube studio nga dem pour mu pour bu dee am loo ci changé nga changé ko su fekkee amoo looy changé nga def ok mu enregistré wu mu jeex fekkee daa am looy changé nga def modifier mais comme amul dara looy changé parce que direct nga doon def nga def ok. léegi direct bi jeex na. léegi mun nga dem ci say ci say euh, chaîne ci say vidéo voilà une yow yow nga ñëw vidéo gis nga ñëwee vidéo ji nga vidéo yi am du fi génn parce que nekkul ci vidéo mise en ligne mais ci diffusion direct nga ñëw diffusion direct gis nga mu ngi nii vidéo test baa ngi nii voilà yaa ngi gis nii gis nga six personnes jot nañ ko seetaan te sax dama ko waroon def fii privé pour ñu ko gis voilà mais bu ñu gisee bu ma monté vidéo bu dugal ko dinañ comprendre dama doon def montage pour expliquer quoi voilà gis nga léegi boo ko bëggee modifier titre bi nga ñëw gis nga nga cliquer nga ñëw nga modifier titre bi description bu amee loo modifier euh, privé wala public nga modifier voilà boo paree nga def boo loo ci modifier comme par exemple nii nga nga pare nga def enregistré. maa leen sant di leen gërëm ci kon ci seetaan bi nga doon seetaan di leen wax ni vidéo noonu rek lañ koy defee. di la wax ni su fekkee nag kanaal bi euh, da nga tombé ci vidéo yi ci YouTube bi te nekk koo membre abonné ko c'est très simple da ngay ñëw ci suufu vidéo vidéo bu munti seetaan ci canal Galsen Tube soo ñëwee ci suuf vidéo bi vidéo bi ngay seetaan soo wàccee ci suuf di nga gis bouton s'abonner bu xonk bi bouton s'abonner bi su fekkee nekk ko membre ci kanaal bi moom ngay cliquer soo ko cliquer gis nga automatiquement nekk nga membre ci kanaal Galsen Tube li lay mooy cloche notification bi ngay cliquer soo ko cliquer ñett yi feeñ bii ci kaw ngay cliquer muy toutes les notifications soo ko xasee cliquer jeex na vidéo bu ñu munti dugalati bu bees YouTube automatiquement dala koy envoyé par notification yëgal la ko saa nga ñëw di def ay recherche vidéo bu ñu dugalati YouTube dina la ko yëgal ñu lay sant di la gërëm seetaan bi kon seetaan di lay jox ko daje ba beneen vidéo du jour incha allahu rabbi jërëjëf. ma lay demandé nag su fekkee nag euh, abonné goo ci canal bi c'est très simple boo bi. boo ci cliquer rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné nga ba pare nag cliquer vidéo bii nga seetaan ko mooy vidéo bi ñu mujjee dugal moom ay mbir a ngi ci ay tips ak ay secret